assira yàlla du attee noonu il faut mu fekk la ci kaw maa ngi lay ziar présidente di la sargal juróomi at yàgg na keroog j'ai pas eu la chance nga am yar lool ami teggin li nga nekk du dara c'est la constance bi nga xamante ne moom la nit war a def buy ànd ak nit comme ni ma àndee ak président Abdoulaye Wade ba tey ma ànd ak délégation yëpp dem déposer di caution Karim Wade félicitations les le candidat Karim Wade a déposé sa question Lat Diop maa ngi lay nuyu ministre des sports di la ziar di la laaj waa Géejawaay di nuyu sa gisuma ko ñoom ñaar sama doom boobu le gardien du temple laa ko tuddee ministère bu amul ministre ay fani fan moom ñoo ak général yi ñoom ñu di ko garder ba nga egsi ñu jox la ko nga dëkk Géejawaay ñu bokk le département le grand département bi nga xamante ne Pikine moo ko meññ ma je pense que su ma ñëwoon fii nii fën kii félicitation sax xam nga li ma bëgg a wax mën naa dem toog boo duggee Pikine sport ngay gis stade ngay gis ay pàkk yu ñu wàkk yu ñu gas di ci football ngay gis ay xale yu néewaatoo ngay gis le sport c'est le favori des Pikinois et Pikine moo jur Guédiawaye Pikine moo jur Kër Massar je pense que benn affaire rek laa la mën a wax statu làmb bu baax la ñam mais mooy stat bi nga xamante ne bërki démb lañ ko defar vraiment inauguré ko nous vous en félicitons di leen félicité bu baax encore une fois ci stade bi nga xamante ne moom lañ defar yóbbu ko ba jam ñaajo tuddee ko Ablaye Wade du tere teelu Ablaye Wade moom anyway everything every day ci kaw rek mais ma bëggoon nga gëstuwaat Pikine quand bi président président Macky Sall dafa defoon réserve sept euh, quatorze hectares la ñu wax super jiw pour reloger les les les gens qui ñi nga xamante ni ñoo jóge ci terre bi les impactés du terre wante ñu desal fa ab ab ab ab suuf suuf soosu ñu fa defal defal bis bu jot ñu ñaan ci stade stade boo xam ne xale yi dinañ bàyyi suñu wetu kër yi ñuy dox di footballantu parce que am nañ stade am nañ Alassane Djigo boo demee am nañ côté terrain central am nañ Amadou Barry et sa ça mais. amuñu stade yu ndaw ndawaan stade mini stade mini sport yooyu yooyu leen bëggoon ku ñu ci jàppale pour xale yi di am fu ñuy petit camp jàppale suñu équipe yi parce que suñu équipe yi nawetaan dañ ko war a xoolaat xoolaat forme bi ñu koy defee xoolaat ko si temps bi ñu koy defee parce que nawetaan actuellement dafa dem ba dafa dugg ci li nga xamante ne mooy année scolastique yi donc je pense que c'est des organismes yoo xamante ne ministère bi daf ko war a jël en possession organiser waat ko xoolaat. ban temps lañ ko war a def ak ban temps lañ war a jàng loolu am na solo ci man monsieur le ministre làmb dañu amoon dañu am stade mais amuñu accompagnant maanaam dañuy diggoon nañu ci wetu stade ci wetu stade boobu nekk Pikine arène de bi dañ ciy def police police bi mu waroon nekk ak ba léegi gisaguñu police aali muy njaay ba tey ni nu koy dégg ñu nax Pikine soxla na loolu soxla réflexion waat suñu stade boobu ñu am nga xamante ni mooy terrain central fa ñuy fubalee suñu nawetaan yi Euh, comme ni ñu wax nag euh, damay taaneele sama kàddu ci basket bi man daal euh, ministère bi dama ko mës a voté depuis Matar ba sama rakk ji maa ngi koy ziar bu baax ñu bokk si ablaat mais dama bëggoon nga xam ne sport bi basket bi ci la bokk man dama dem basket wàcc basket gis ñu jox leen ay prime yoo xamante ne dafa daw sama yaram keroog man nag ambuleuse la mais je sais que basket bi. bokk na aussi ci discipline Sénégal ñu yëkkati leen parce que au moins dinañu indil dara di félicité waat les lions du Sénégal les lions de la Teranga di félicité waat basket bi handball bi les les sour muets nga xam ne sama rakk Aziz Dia moo leen yore et tout le monde monsieur le ministre bon je vous souhaite vraiment une grande réussite vous êtes un homme bon merci vous êtes en connu